seeti Ahmed Khalifa Niass def na déclaration ca ba nga xam ne fa la nekk foofu nga xam ne mooy Médina déclaration Ahmed Khalifa Niass nag lu rëy la ndax am na loo xam ne wax dëgg yàlla fan yëpp ni ñu ngi koy seet ñu seeti borom jafara di Ahmed Khalifa Niass. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di gërëm maa ngi leen jërëjëf maa ngi leen di gërëm dégg nga leen sant di leen gërëm di leen dégg nga réew mi ci boppam ab réew la boo xam ne politiciens yi moomuñu ko ni ko politiciens yi jëlee dégg nga séquestré ñu ci guddeeg bëccëg wii ak noo loolu moo war a dañ ci réew mi ni ko sama raq Sidi Lamine Niass dégg nga di defee ay débat ca télé ba ku nekk yëkkati débat 2S TFM rajo yeeg télé yi loo ibbi rek ñu ngi wax waxu waxu waxu wii war a noo dégg réew mi du loolu la soxla ce peuple n'a pas besoin chaque jour de parler de politique chaque jour oui ou no non ou oui quest que ça veut dire li fi jot jaar ci ay gàmmu ak ay màggal ba su yàlla kenn dara jëlu ko topp ci wii bi ak noo bi rek ba fàtte li nga xam ne mooy suñu farata suñu borom dégg nga loolu war nañ koo waxtaanee ndax réew mi dégg nga munu ci jóge ca colonialiste yi ba tey ñu fi nekkoon politiciens yi dégg di wax ay wax tey wax ja dañ suba wax ja jaar na la loolu dootuñu ko nangu tey ci réew mi ndax dégg nga ñun ay kilifa nañ te doo xam ne bàyyi suñu njaboot taalibe yi daw di yuuxu ni wooyooy bu ñu ñëwee ñu dal leen dalal leen dégg li ñu amoon ci ci ay koppar seddu ko taalibe toog ndax réew mi doxul dégg ñaar laa leen di xamal ñetti fan a ngi nii yéen a ngi gis avion yaa ngi wër Sénégal dégg ku ci teen gis avion yaa ngi wàcc dégg nga ministère de l'intérieur yoon na na ma euh, leetar ne ma dama dañu gis ay avion yuy wàcc di laajte Ahmed Khalifa ma ne leen Ahmed xalifa dégg ci kanam tuuti da ngeen xam ne képp ku dé ku yoroon sa rongoñ di ko jooy bu yow nga fomp ko dégg képp ku ñàkkoon liggéey war a nga nekk ci ay tolof tolof bu yow nga reetaan ndax dégg dama am solution bi te solution bi maa ko yor dégg nga politiciens yi ngeen topp ñu leen di dig ak di leen wax di leen jaaba jale yéegal leen ci kaar yi wàcce leen dégg nga wiib ak nooba jaaba jale ba ca kaw loolu dama koy jeexal ndax dégg nga jafaraa ba nga xam ne dama ko doon def ca Kaolack dégg nga indi ko ci ren Dakar la ma bëgg mooy réew mi dégg nga ñu xam ne ne naar yi jóge Qatar na ngay ñëw ak seeni ay malet naar yi jóge Arabie Saoudite dégg nga ña ngay ñëw ak seen i malet ña jóge dégg nga Birmingham ña ngay ñëw ak seeni malet dégg ñoom ñëpp dañoo taxaw dégg nga pour ñëw taxaw jàppale ma jàppale leen sigil Sénégal ak bu weesoo màggal yeeg gàmm yi nga xam ne ñooy am ci réew mi dégg nga ajjuma samedi dimanche ñetti fan yii dégg nga wax naa ko ci journaux yëpp boo demee xool ko la tribune soo demee dégg nga ca beneen journal yaa ngi ko cay yër ña ngay wax la jafaraa da Dakar la ma doon amal Kaolack gàmmu gu rëy gi indi naa ko Dakar te ca palais ba laay recevoir ba dégg nga képp ku soxla boo leen xëyee àjjuma na ñëw dégg nga samedi ak dimanche naar ya taxaw prince yi buur yi ñoom ñëpp ña ngay ibbi seeni ay malet ndax yëg nañu wax dëgg yàlla dégg nga Ahmed Khalifa war nañ koo jàppale mu jàppale ay taalibeem jàppale Sénégal dégg boo waxul waaw ne déet ñaar ñoo am kat dégg nga positif ak négatif dégg nga boo waxul déet ne waaw waaye ne cell waxoo déet waxoo waaw dégg nga yaa ngay dooleel doo déet war a yaa ngay dooleel waaw waaye nag jot na nag dégg nga ñu waxtaan ak waa réew mi man du ma toog bañ naan ana kilifa diine yi dañoo noppi damay bokk ci ñi nga xam ne ci jafara bi bu soobee yàlla dégg nga di ngeen dégg déclaration boo leen musta dégg ndax man kenn xabaluma ay bët na ma xoolal fee samay bët laa yor kenn du ma ne xoolal fële dégg nga lu ma neex laay wax ak lu ma neex laay def ndax xam naa mën naa fekk naa jëf naa dégg nga yi bu ñu toogee ca télé naan parti de contribution parti télécentre boobu dañu ñëw ca Ahmed Khalifa dégg nga ca palais bi nga xam ne bés bu nekk danaa recevoir ay junni junni doomu aadama ku nekk ma jox la junni dégg nga ab nit boo ko juufee junni du gis jinne te jinne di ko jaaxal moo taxit samay junni danaa ko continuer di ko dimbalee askan wi léegi qu'est-ce que ça veut dire ça le peuple a affamé de la vérité du ñu ko nangu tey du ko nangoo la dégg maa ngi koy wax sii di démb ne ñoo bokk ndey ak baay am na loo xam ne dégg nga ci réew mi dañu war a takk suñu bopp wax ak askan bi wax ak askan bi dégg nga ci diine dégg nga woo yàlla sooraale yàlla dégg askan bi loof nañu lott nañu nañu def ay jàng dégg nga moo gën woote mbumbaay beeg sabar yeeg tama yeeg ndaataan de lii yooyu laa bëggatul ak juma samedi ak dimanche yéen ñëpp jël ñëw ca pale ba pale ba jàkkaarloog sama kër. du ay caaxaan ñëw leen dégg képp ko am na am nga soxla wara loo bëgg doon ñaan muy jigéen buy watam jëkkër dégg nga ak góor bu doon liggéey ñu dàq ko kuy uta visa kuy ñaan tekki ku bëgg dekk sax njiitub réew dégg nga na nga ñëw dégg nga ñi loof ñi lopp ñi yorul ñi ndool ñi amul ñi am ay bor ñi bor sonal ñi ñàkk ñi musul tee dix mille dégg nga nañu ñëw dégg nga naar ya ñëw na waa Arabie Saoudite ñëw nañu malet yaa ngay ñëw dégg jël xaalisu naar boo xam ne asaka la nga lekk barkeel jën ndax benn sandwich ak benn tiset ñu leen di jël yéegal leen ci ay njaganjaay muy opposition ak guvernement loolu am na leneen lu ko gën askan bi dee nañu dégg nga moo taxit dama ne dégg la jafaraada Dakar jëlee naa ko Kaolack indi ko dakaar du doon lu ndaw dégg lu mag lay doon loo xam ne réew mi ñëpp dégg nga dana ca jëriñu la ngeen woyoon léegi nag laa bëgg mu jolle ca kaw réew mi dégg na xibaar baa ngay daw te politicien muy opposition génga muy gouvernement nañu ñëw ma wax leen la nga xam ne moom laa ca xam ndax Hallelujah. Mbodia Fora